internet Dakar Buzz TV nuyuwaat nañu leen bu baax xamaat mbégte ñëw jàkkaarloo ak yéen ni koy defee saa ne ah, ni leen ko waxee woon rek xam nañu ne combat bombardier ak Balla Gaye na ah, ba ñu ñëwee seet si nag soxna si nga xam ne mooy Adja Selbé am na lu mu ci waxoon ne woon na day xaar rek ah, ba yëf yi euh, gën a ñëw mu daal ci wax moo tax tey ñu dellu siwaat daal di koy euh, seet si laata ñuy tàmbali damay gërëm ki nga xam ne tey jii moom abiyé nekk foofu ci euh, nekk marine foofule nga xam ne rek bu fekkee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 di julli ci sangu-sang yi sallallahu alayhi wa sallam muy bàyyi Fatima ak Zeynab ak Ruqya ak Umu Kalsum kenn ku ci nekk nag am nga sa wasila muy Serigne Touba Xaadim Rasul muy Cheikhul Xaadim naan ko Mbakke aslamtu nafsi ilayka yaa xaadimal maxtaar di ñaanal ki fi nekkal eh, Serigne Touba muy Serigne Mountakha Mbakke mu yàgg fi lool te ànd ak wér ku ci nekk am nga kóllëre mhm. am nga koo bëggal sa am na ko wóolu ginnaaw yàlla ak yonent bi mu Seydi Mouhamed Moustapha Sy di ko ziar fu ñu waxee dañ koy waxtaane di nuyu waa Dakar Buzz di Dakar Buzz mooy àddina boo nee Dakar Buzz rek kon nuyu nga waa àddina bi yëpp ndax àddina yëpp Dakar Buzz la ñuy seetaan di gërëm di sant di ñaanal borom Dakar Buzz yàlla gën a yokk mën-mën gi yow mi nga xam ne yaa fi liggéey yàlla gën laa may xel gën laa may xol bu dal ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba a mhm. yàlla may la nga yeggale ko. amin waaye eh, ñu koy ñaan lépp li nga ñaan eh, yal ko yàlla nangu ñu ko ñun ñëpp euh, ñuy waxtaan ci li ma waxee léegi waaye laata ñu dugg ci loolu am na événement bu xew muy li nga xam ne mooy eh, train express régional bi nga xam ne nag président daal dina ko inauguré mu commencé di di daw ñenn ñi nag wax na ko def ñeneen ñi ànd nañ ci ak moom ñeneen ñi di ko ñaawlu lan moo ci sa xalaat. waaw sant yàlla julli ci yonent bi ndax avancement la. Euh, train dañ ko daan déggee bitim réew sama classe gi client mën na leen woo ñuy wax moom mu ne ko damaa nekk ci train bi mhm. kon ñun bu ñu dundee ba yàlla may ñu ñun ñu am train mel ni Europe sant yàlla mhm. ñi nga xam ne dañuy ŋànni ŋàññi président mhm. naan train bi nangam ñooñ dañoo soxor dañoo soxor Macky Sall mi ngi liggéey c'est pas parce que ne ah dafa recevoir Selbé gisuma Macky Sall dégguma Macky Sall gisuma ko ànd ak Macky Sall gisuma première dame. Mhm. waaye ku liggéey dañ lay wax ne yow mii liggéey nga. Mhm. train bi képp ku ci wax lu ñaaw. Mhm. bis dina ñëw dégg nga ca duggi. sunu sunu intérêt la. lu soxal réew mi rek moo ko ñor def na ko macha allah di ko ñaanal mu def yeneen yu ëpp yooyu. d'accord ci daraja Seydina Mohamed. di ko encourager ndax maanaam doon jiitum réew dafa metti kenn ku ci nekk bu sañoon fa nga toog danga fay jóg waaye ginnaaw yàlla taaj na ko na gën a bu baax mm-hmm. bu mu cofantu de mm-hmm. na gën a toogaat toogaay bu baax na toog ci digg bi ne faax mm-hmm. ba maanaam li mu fi bëgg def yëpp yàlla jàppale ko mu yeggale ko man nag gisuma ko mayu ma waaw bëgg naa ko gis kay kenn ku nekk bëgg ngaa gis sa président sa fonte ak moom li nga am ci ab xam-xam tuuti nga dolli ko ko mu gën a góorgóorlu nga naap ko bu mu déglu ñii ndax ñiy wax di yàq yëpp dañoo bëgg a toog palaasam dong te mën naa am bu ñu fi toogoon sax ñun duñu dund ba ba am eh, eh, kii bi train bi nga xam ne macha allah fii ba jam ñaajo xam ne booy dem aéroport coono bu nekk ngay sonn di nga fay xaalis bu bëri mhm. la ngay fay ci train bi mooy gën a yomb di ko ñaana lu mën bii daal mhm. maanaam deux mille deux mille vingt vingt deux bii mhm. yal na mën lu ko ëpp d'accord jërëjëf Seydina Mohamed di ko félicité naan ko président félicitation Mhm. félicitations président nag ki nga xam ne mooy président de la république euh, Macky Sall waaye Selbé dafa am loo xam ne gis nañu ko démb wala bërki démb muy ab jigéen boo xam ne dafa faat borom këram te dañ doon gis ci fan yi yëpp lu violence yi nga xam ne mi ngi ci biir kër yi ñii di faat seen doom ñii di faat seen yaay ñu gis borom kër euh, boo xam ne dañu koo faat loolu la moo ci sa xalaat loolu yëpp ci li ma waxoon rek ne woon naa leen jamono ji jii di ji di ñëw nii ci kàttanu yàlla maanaam euh, ñi nga xam ne maanaam ay xale rek ñooy dee loolu yëpp ci jinne yi la rek Macky Sall sarax bi mu war a def quatre-vingt-dix-neuf nag yi pour ci ci tali bi muy accident yi quatre-vingt-dix-neuf nag yi pour lan la Macky Sall da ko war a def yàgg na wax naa ko avant coronavirus waaw man man moom laa koy jox ginnaaw moom moo jiite jiite réew mi moo yore milliards yi man tey su fekkoon damaa yore ay milliards dama koy defal sama réew mhm. pour sama réew am jàmm jamante bi bañ am deret ji accident yu bëri yi bañ a am. Mhm. dugg ci biir géej gi bañ a am il faut mu def sarax. 99 nag yi moom nu mu koy defee 99 nag. fenn fenn fu ci nekk dañ ko fay rey sama kër fii benn leen fii rey. Mhm. li des dañuy dem Malika. rey ko fa dem sumbu jun maanaam fépp fu ñu xam ne fii am na rab jurbe rond bi côté boobu baaxul. Mhm. maanaam fépp fu ñu xam ne fii am na rek tëngéej ci géej gi dañ fay def kii nag maanaam fépp fu ñu xam ne de fii rek am na am na lu fi nekk rek. dañ ko fay rey. suur fa deret deret ji dong lañ ca soxla li des ñu jox ko dëkk ya fa nekk. mais kon su ma la déggee dafa mel ni 99 rab moo am wala. 99 nag. nag 99 nag la le président waaw maanaam fépp fii ci Sénégal rek dinañ fa dem dawal oto dem ba foofa jël nag rey fa. Mhm. fépp fu ñu fu ñu xam ne ndawal gi dañ koy saraxe foofa duñu ko duñu ko delloosiwaat. Mhm. tey jii su ma demoon géeju Malika def fa sarax dama koy saraxe foofu ca Malika mm. su ma demee Yoof saraxe ko foofu dama ko fay saraxe su ma demee Soumbédioune tuur fa mm. dama fay saraxe yàpp bi yàpp du dellusiwaat fépp mm. foo rey rek moom ngay séddale ñooñu sarax leen ndawal li ñu ñaan nga dem feneen mm-hmm. ba mu mët ci kàttanu yàlla tant deful loolu man gisuma ci saafara reyante bi dina bëri déret bi tey di bu nekkee géej gi am na ñoo xam ne ñu ngi dugg ci biir géej gi di di di di tuur déret ci géej gi géej gi li mu soxla mooy benn potu ndaa potu ndaw tomate bu 2 kilos bu weñ bi. loolu la géej gi soxla. ci deret moom ngay xuus dugg ci biir ñaan li ngay ñaan sotti ko tànq te ñëw indi. Mhm. yaa ngi dégg c'est que am na lu bëri loo xam ne wanew ma ko sama bopp. muy lan am na lu bëri lu bëri loo xam ne mën naa ko def mais man wanew ma ko. comme comme lan parce que am na loo xam ne boo ko teelee def rek mën na laa jàpp la mu jàpp sa ci ñaani te ñaari doom la am bëri lew ma mhm. dañuy xaar. yàlla bu ñu ko joxee rek bu ñu ko santee rek ñu daal di koy def ndax seet bi xëyuma xëy seetal sama bopp mhm. maanaam dañ ma koo jox ma mën koo seet ma mën a seet mën a gis mhm. bu fekkonte ne joxuñu ma ko woon ba tey maanaam am naa ci problème dof naa wala ma feebar wala samay doom feebar mhm. mais buñ la joxee lépp loo ci def du loo wàññi dara loolu la euh, coupe du monde bi mu ngi ñëw Euh, gaynde it na demaat bokkaat ci li nga xam ne euh, moom mooy jogante bi loolu it loo ci gis ak loo ci xalaat ak ndax dañoo war a génne sarax dañoo war a toji nen wala. wa comme d'habitude rek maa ngi ñaan mën naa xam rek lu ci xew naa xam ñi ñiy comme comme dab li ma ci defoon yaakaar naa bu at bële passé saf naa ki sàpp macha allah neexoon na trop bi yoon moom Dakar Buzz lañ koy defee. Mhm. lu ñu gis rek wax ko. wax équipe bu war a dóor ci kàttanu mhm. yàlla mhm. di ñaanal Sénégal mu jël mu jël coupe bi mhm. ndax ñun mérité nañ ko daal vraiment a jàmbaar lañ comme ni ko di ñaan waaw man de loolu laay ñaan vraiment man bu ma sañoon sama réew bi yoon day jël coupe bi bu ma sañoon te incha allah rabbi lu ma ci mën dinaa ko ci def maanaam promettre na nit ñi. bu fekkente ne xam naa bilan bi naay xam rek newoon naa leen naa xam rek. calendrier bi waaw waaw waaw naa xam calendrier bi dong laa soxla waaw. lépp lu ci war su fekkente ne man am na ko dinaa ko def duma xaar kenn bu fekkente ne aw ma ko aussi dina lancer ne nañ def saraxu nangam maanaam am na ñoo xam ne loolu la ñuy xaar ñooy def leen sarax bu ko defee ñu def ko rek yàlla may ñu coupe bi incha allah ndax fi ne nii macha allah Sénégal boo xoole changement am na boo demee ci tali yi macha allah léegi mi ngi rafet. Mhm. macha allah changement am na kon di ñaanal Macky Sall mu yàgg fi lool te ànd ak wér te lépp lu mu ci liggéey Sénégal. maanaam ginnaaw papa Abdoulaye Wade moo commencé woon na ko eggale ci jàmm ba réew mi naat xale yu góor yi am liggéey jeunesse bi surtout jigéen ñi am liggéey bu ma sañoon jigéen ñi dañ leen utal liggéey góor ñi ut ñu utal leen liggéey mhm. kenn ku ci nekk charge femme d'état yi ñu yokku leen mhm. militaire yi ñu yokku leen gendarme yi ñu yokk leen policiers yi ñu yokku leen su boobaa maanaam chômage bi dina wàññeeku bu baax a baax a baax a baax te bu ma sañoon chômage dootu am Sénégal d'accord waaw yàlla ñu ma ñu coupe amiin yal na ko yàlla def comme yenn sénégalais yi ñu koy ñaanee ah, ñu jublu nag ci li nga xam ne tey ji moo waral waxtaan bi muy làmb làmb yu ci bari am na fi ah, kenn déggul nga àddu ci làmb booy ñaa ñëw na fi làmb ki nga xam ne ah, moom mooy yeneen ak ñeneen daal di nañuy bëre waaye ba tey sel bi wax ci suba Bombardier di daje ak ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye mu mel ni bii mooy troisième fois wala bii mooy deuxième fois ñoom ñaar ñu daje sel bi lu mu gis ci làmb ji ak làmb gi naka lay demee waaw xam nga Selbé Ndom moom da di taalibe Sëñ Tuubaa boo xam ne maanaam làmb ji dama ciy duggoon dugg dugg dugg dugg ba suma waxul du neex léegi na xeex commencé dima xeex ba sama xol tàng ma ne man daal xam naa ne ci kàttanu yàlla am naa yaakaar ne damay bàyyi wax ci làmb ji parce que am na loo xam ne jaru ko mënatumaa am lu ma amutoon yaay booy ci làmb ji. Mm-hmm. ngóone mënatumaa am lu ma amutoon ci làmb ji. Mm-hmm. tey jii kër gii ma dëkk wax waxa ma ko may mhm. mu yóbbu ma dem ziyaare gi Seydina Mouhamed mhm. lépp lu ma sol wax moo ma ko jox aw ma kenn ku may may ñaar dërëm ci àdduna bi mhm. kon maanaam buñ may xeex ci affaire bu ma wax làmb te ñëpp di wax làmb ñooña ñooñu dañoo amul fulla rek amuñu fayda ndax ñu lay xeex xam ndax xam naa la ma cay wax yàlla dima ci jox wërsëg maanaam ma cay am sama wërsëg rek mën a am lu ma sol mën a am lu ma lekk sama njaboot kenn ku ci nekk ak fa yàlla tudd na fay am am na ay jamono xamoo woon ne da ngay ñëw Dakar Buzz. Mhm. yàlla moo def sa wërsëg Dakar Buzz chaque fin de ñu fay la. Mhm. noonu rek la demee kenn ku ci nekk sa wërsëg fa nga nekk yàlla dina la fa fekk ne la fii fii ngay amee sa wërsëg. Mhm. làmb ji nag ma dugg ci yàlla def ci sama wërsëg trop trop trop trop mais après mu am ay xeex am ay woote baay nangam nangam xam nga dama di jàmbaar rek doon surtout buur surtout ma ñaaw si la. sama baay baayam doon buur maanaam ma doon buuru séeréer fit ak jom ji doon taalib sëñ Tuubaa jébbalu ci moom mu dugg ma jom jooju laa am ak fit yi moo tax su ma ragaloon ba léegi bàyyi naa làmb. d'accord ginnaaw làmb bi booy ñaa waaw ñu wax ci ci làmb bi booy ñaa mënuma ci woon a wax. ndax gisuma daan. d'accord su ma gisul daan duma wax. Mhm. làmb bi. Euh, Papa Sow Papa Sow ak Siteu deret a waroon a tuuru loolu moo nekkoon làmb ji. te gisoon nga deret ji yow. bien sûr. bien sûr mais gisoo woon ne jël dina am moo tax. déedéet jël amul jël amul gis moon jël. Mhm. gis moon jël man su ma waxul rek yaa quelque chose. parce que nit ñi war nañ koo xam ci man. Mhm. léegi Balla Gaye mhm. ak Bombardier jamono yële damaa gisoon Bombardier daanu rëpp. daanu naka xam nga daanu dafa bari façon carte appui am na. xam nga rëpp rëpp mooy daanu daanu bu la bett nga toog detteelu. jël sa loxo def ci suuf. dafa tiit xulli bët yi loolu laa gisoon. loolu la gisoon waaw loolu laa gisoon. jamono ji loo gis. dégg ci laa ñëw ba léegi ngóone ngóone demee bàyyi nag demee bàyyi nag. di ah, waxal rek seen xam nga mu tàng. waaw non non yaram bi non non yaram bi yaram bi du tàng. wala tey ça va non tey ça va yaa ma gis tey damaa dal. Mhm. voilà dama toog yàlla mi nga xam ne moo may won yëruma xërëm yëruma dara. Mhm. ñu wax ne Balla Gaye ak Bombardier dinañu bëre. yàlla won ma Bombardier mu rëpp. Mm-hmm. en direct laa nekk euh, ci Dakar Buzz ñëpp lay seetaan ñëpp dañ ma seetaan Bombardier la gisoon mu rëpp mm-hmm. bi ma gisee mu rëpp ci lay def vidéo ne yàlla moo mën a maye xëy yàlla mën a maye mm-hmm. ku mën a wax combat Balla Gaye ak Bombardier nan lay demee ñi te naan ay sëriñ lañu. Mm. di sàcc xaalisu jàmbur yi. Mm-hmm. balaa maa xam ne mën nañu ñu ñu décortiquer combat bi ne nii lay demee nii lay demee nii lay demee. Mm-hmm. ma noppi di xaar après ma gis Bombardier tubaab ba dóor ko mu daanu te man ni ma gisee woon mu rëpp. Mm. ak tubaab ba na mu ko na ko dóoree euh, euh, euh, mu daanu. Mm-hmm. bokkul muy combat MMA waaw MMA bi combat bi. dañ ko dóor moom moo bàyyi dam mu jaaxaan. Mhm. làmb ji am nañ yaakaar ci yaakaar ci yàlla ak yonent bi. Mhm. ne làmbi Balla Gaye la. Mhm. moo ah parce que man damaa gis euh, Bombardier mu rëpp. kon man su dee wax bu fekkente ne yàlla nag mooy dogal. Selbé dogalul bu Selbé doon doon dogal man maay seet li ma neex ma di ko dogal. doom leen koy dogul ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullah gisuma kaamu Balla Gaye fenn. ñëw fi yónneewu fi. gisuma bombar Bombardier ñëw fi yónneewu fi yàlla moo ma nattoo may wax làmb du lu ma neex lu ma yàlla teg la ma nangu ko ndax jaam day nangu dogal waaye dama gisoon Bombardier rëpp xulli bët di tiit xulli bët di nii tiit loolu laa gisoon su fekkante ne moo am ne nit ñi xam ne selbe loolu la gis su nekkee amul ñu xam ne loolu la yàlla dogal làmbi Bombardier Balla Gaye dina neex ndax ñoom dinañ jàkkaarloo waaw si loolu sax laa bëggoon ñëw xam nga léegi maa lay may yaa ngi wax léegi eh, gisoon nga Bombardier rëppeelu maanaam tiit daan xuli bëtam mais boobu yaa ngi koy gis ci combat bi nga xam ne moom la doon eh, dala fële muy MMA bi nga xam ne eh, moom ci lañ ko daanee mm-hmm. mais bii nga xam ne dafay jàkkaarloo ak bala Gaye boobu laa bëgg nga wax askan wi naka nga gisee parce que parfois di nga ne dina xaw a yàgg wala dina jàkkaarloo dóor dina am kurpen dina am dina xaw a dur ak yooyu est-ce que loolu mën nga ci wax tuuti waaw man loolu ko gisee boobu MMA amagut boobu dañ ne Balla Gaye Bombardier day bëre. Mhm. ndax man Balla Gaye du ma dugal àjjana. Mhm. Bombardier du ma dugal àjjana. Bombardier mayu ma dërëm Balla Gaye mooy mayu ma dërëm yàlla laa yaakaar ak yonent bi ak métier bi ma sunu borom jox bi may gis Bombardier di rëpp boobu enema amagut ma ne kon ah Balla Gaye dina daan Bombardier. enema mhm. bi ñu dóor ko mu daanu. bii nag ba léegi gisaatuma ca dara xanaa ñoom ñaar ñu taxaw jàkkaarloo. bëre bi dina neex ndax dina am nappante. ñoom ñaar dinañ jàkkaarloo nappante dina am mais man boo mbéj rëppam ba rek laa gis te ba tey falaay taxaw na doomu aadama yi xam ne Selbé nit la taalibe Sëñ Tuubaa la koloré Seydi Mouhamed Moustapha Sy la bu ma sañoon du ma wax waaye yàlla moo ma ko nattoo li ma gisoon mooy Bombardier rëpp loolu laa gis kon dañ naan ah Bombardier bu rëppee Balla Gaye mooy am ndam mhm. nekkul na Balla Gaye daf maa neexal wala ma jot Balla Gaye wala ma bañ Bombardier sénégalaise laa déedéet ñoom xam nañ ma ñoom xam nañ na man xaaruma ci juróomi dërëm kenn pour ma wax mm-hmm. ndax bu fekkonte ne da ngay faral nit rek kon ma ma faral sama bopp ne maa fi ëpp alal mm-hmm. maa fi dàq ci jigéen ñi maanaam maay maay maa fi ëppale lépp maay joxe lépp mais yàlla mooy dogal loolu laa gisoon ne mbër it moo rëpp après MMA bi xaw ma ñëwaat ñu dóor ko mu daanu mm-hmm. ba léegi gisuma dara lu ci changé lépp lu ci am nag ñu xam ne du man taalibe laa taalibe sëñ Tuubaa laa yàllaa mën a too man man may wax rek mais dama gis Bombardier jëx ren mu rëpp rëpp laa gis mu def tiit xulli bëdi loolu laa gis ñu baal ma àq nag ndax mm-hmm. euh, maanaam fi mu nii tollootuma foo xam ne mënutuma am lu ma amatoon ci làmb sant naa yàlla li ma gënoon a bëgg muy kër am naa ko li ma gënoon a bëgg mu dem ziyaare gi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dem ca Kaaba ga mu néegu yàlla bi sant naa yàlla julli ci yonent bi ah su amee noonu ñun ñëpp nañu wax alhamdulillahi rabbil alamin te xam ne selbe du mooy woon boppam yàllaa ma woon Bombardier jëxran mu rëpp mu rëpp jëxran mu rëpp mhm. su ma gisoon Balla Gaye mu rëpp dama naan Balla Gaye laa gis mu rëpp mhm. mais Bombardier la gis mu rëpp man Selbé Ndom taalibe Serigne Touba bii mhm. kollëre Seydi Mouhamed Moustapha di ko di ko dogu ci laa ilaha illallahu Muhammadu rasulullahi boo ba tey nit ñaa ngi may sonal mais loo gis mooy loo gis ma ne leen nañ xaar di ngeen ko gis Dakar Buzz dina ñëw boo ba tey maa leen di xaar a ah, loolu laa gis loolu laa gis daal nga gis waaw ba bomba jëy rëpp daal laa gisoon mhm. su ma ci gisaatoon leneen xanaa li ma gis mooy ñoom ñaar ñu taxaw mooy combat bi dina neex dañoo taxaw ñoom ñaan ñëpp mhm. maanaam combat bi dina neex dina neex ah rëpp ba nag ba ma koy gis booba bomba jëy demagul MMA xaw ma mhm. demagul euh, ba bëri jëg tubaab ba d'accord booba gisagoo ko loolu laa ci gis mënu leneen lu ma ci wax rek waxuma dëkk d'accord naka nit ñi gisoo noonu bu fekkente ne Balla Gaye daan na Bombardier ñu xam ne du man yàlla la bu nekkee Bomba Dieng daan na Balla Gaye ñu xam ne du man yàlla la da ngeen maa laaj te maanaam li ma gis rek laa wax. Bomba Dieng rëpp laa gisoon. avant MMA bi. Mhm. waaw kon nag ñoo ko déggandoo muy euh, kàddu selbe dinañu gis tamit ci làmb yu mag yi su mel noonu wala sax yu ndaw ndawaan yi. Mhm. dafay xaw a dem fitna maanaam violence yeeg yooyu ban appel ngay lancé ñi nga xam ne ñoom ñooy supporters yi. supporters yi yëpp samay samay samay doom lañu nañu xam ne àddina yemul tey ndax mbéy gay nekkoon na fi. radiallahu anhu duuba lees radiallahu anhu maanaam euh, papay Ama Balde nu mu tuddati Falaay Balde mm-hmm. yal na ko yàlla xare àjjana radiallahu anhu laa leen wax ñoom ñëpp maanaam mag ñi naan daan bëri ñekkoon nañ fi mm-hmm. ñoom aussi nañu xam ne seen génération day passé beneen génération yu ñëw mm-hmm. gis ñu kenn ku dee ba ñëwaat amut ku dee ñàkk sa bakkan say waajur na nga leen waroon defal ñu dog yelwaane wala ñu na ñu xam ne làmb benn bis la ay minute dong la bu fekkente ne Balla Gaye moo daan nañ ko def fair bu fekkente ne Bombardier moo daan nañ ko def fair play mhm. te xam ne ñoom dañoo bàyyi seen waajur ca kër ga ñu yaakaar leen ëllëg mhm. ku sa ngeen boo juree doom sa doom dina la yóbbu màkk jëndal la kër teral la mhm. waaye dem di jamante dem ci stade di jamante wala ngay xaañ nit xeer loolu affaire violence bi Sénégal baax nañ torop mais loolu rek moo leen yàq xale yi mm. violence bi ñuy def seen bopp moo baaxul maa ngi leen di diggal ngir jëmmi laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi seen bakken yi doom bëgg leen ko nit ku baax da ngay bëgg sa bopp bëgg sa bakken mm-hmm. ñaan yàlla dund tekki kenn ñaanu yàlla dund di yalwaane wala ngay doonub geeskat wala ngay doon leneen lu bon loo xam ne fu nit jublu ñu ne cim mm-hmm. ah? nit ku si nekk da bëgg koo xam ne ku ko gis na ay ay sama doom ci dëgg la waaw di ñaan yàlla jàmm senegal rek jàmm ji bëri fi lool mhm. daraje Seydina Muhammad sant nañ la gërëm la bu baax a baax di sant ñi nga xam ne ñu ngi doon seetaan mu nekkoon rek li nga xam ne ah, moom moo ñeel làmb suba ji ci diggante Bombardier ak Balla Gaye 2 mhm. ah, dégg nañu kàddu yi nga xam ne nag Selbé wax na ko ci ah, ñu ngi jox ñëpp dig daje suba incha allah rek ci biir Dakar Buzz TV di gërëm bu baax a baax Ahmed ci caméra caméra bi ak ki nga xam ne moom mooy Amadou Sy moom tamit ci ci caméra bi ak bientôt